taalibe soxna yëpp nag teg nañ ko ci loxo koo xam ne doom la ci kër gi taalibe la ci kër gi lépp la ci kër gi muy soxna Adja Momi Kébé mu mel ne jotaay bi est bis bi danoo war a ñëw rek xaxaloo dem déedéet jàngat la war a doon soxna may borom bis bii moo jëloon ñaari ginaar defar ko ca loxoom yu tedd ya ci xol bu sell xol bu sedd dem fekk magam sëriñam xaritam ba sëriñ Falilu ne ko dama laa teral si ci bis bi sëñ Fàllu ginnaaw sëñ Tubaa joxoon na ko kun fayakun sëñ Fàllu ne ko rafaate naa la mbóotu lay xadar di nga ci am lu kawe sa njor ñaari ginaar yooyu tey waa kër sëñ Basiiru Sarr jaamu sëñ Tuubaa def nañ ko ñaari junni ginaar kon loolu mooy la sëñ Tuubaa waxoon ni baarakali fi xarakaati wa sukkoot rabbi lazi xat-xaadali kun fa yakun soxna may utal na laylatul xadar kër kon barkeb sëñ Fallou Bango soxna may utal na laylatul xadri daayira soxna may am na tool boo xam ne sax toolub laylatul xadri kon guddi gii nag ñu war cee jàng tuuti yàlla moo ni xayrun min alfi shahri soo ci jaamoo yàlla tey ci guddi gi junni weer loolu kenn mënu koo dund moo gën a kawe junni yoo jaamu yàlla junni yoo xam ne dangay wóor bëccëg ya di julli guddi ya sëriñ tubaa ko xam moom nag moo wax ne ma ni maa kaana xablal xalax man kaana lii bi këraman wa tilax ma ni yàlla xamal na ma maa loo xam ni kaana nekk na xablal xalax la jëkk muy bind dara moo tax kon lay laylatu xadar mënu koo jaaxal am na nag boroom xam-xam yu ne kenn xamul fu mu nekk sëñ Tuubaa ne maa xam ñu ne ko Mbàkke noo ko xamee mu ne làkk sun liyatun zaakun rajas jun jukkatun zahakun mayes léegi ñu war a xalaat ci sunu xalaati bopp dañ ne guddi gi gën guddi yi ñu ne kon fan la war a nekk ñu ne weer wi gën ci weer wi ñu ne kon kañ la war a doon ci bis yi ñu ne bis bi gën ci bis yi muy guddi ajjuma ndax guddi gi am doole ba mënta nekk talaata al ajjuma moo gën talaata guddi gi moo am doole ba mënta doon altine altine ajjuma ko gën guddi gi am ba mënta doon alarba sëñ Tuubaa nag daal ne dee leen ko xool ci bis yi saa yu ñu wooree mi fan lay doon ajjuma lay doon guddi gi ajjuma lay doon te day tool fi mu ne yi ñi def mathématique observateurs yi experts yi waroon nañoo taxaw loolu rek doyoon na waxtaanu at ci senegal ñu càmbar ko xool ni Sëñ Tubaa génne guddi gi lay la ko xadar Sëriñ Tubaa nag lépp yàlla am na kum ko dénk ci njabootam sëñ Moustapha Bassirou daa gane si sëñ Modou Rokhaya sëñ Modou Rokhaya daal dina ko lan la la sëñ Basiiru mësoon a wax loo xam ni danga ma koy wax ma jànge ci taalibe nee na mu ne ko mës naa koo laaj ne ko ñun sëti sëñ Tuubaa yi nan lan demeek yéen doomi sëñ Tuubaa yi na sëñ Basiiru dafa tudd yàlla ne ko mu sofaa mu ne ko Mbàkke mu ne ko aka sore mu ne ko ñeen fukki sëti sëñ Tuubaa yu dem ba am juróom fukki at te mosunoo def lu naqari sunu borom boo boolee seen maqaama nu muy tollu mu ne ko bari lool Mbàkke mu ne ko boo jëloon teg seen balance boo jëloon ñeent fukk yooyu teg ko ci balance seen maqaama jël soxna may mi nga xam ne caatub sëñ Tuubaa la ba noppi di jigéen bu tegee ca geneen wet ga téll ga fu waay toll di ko dégg kon doomi sëriñ Tuubaa faat na